ndax nag dafa bokk ci xeeti xéewal yi sunu borom subhaanahu wa taala di defal jaamam lay tax yàlla loola di ko neex mooy jaam bi ci boppam ba sant ko kon ñuy sant yàlla di leen sant santale yàlla di sant bokk yi nga xam ne it ñu ngi topp suñu jataay fu ñu mën a toll di ko safoo euh, tey nag ñu indi leen sant ki gën ci nit ñi sallallahu alayhi wa euh, julli ci moom nekk na ay kéemaan yoo xam ne fa tabaarakallahu ahsanal xaaliqiina daanaka sunu xamoon li ñu ci yàlla ëmbal sax mën naa ne xaw tuuti ñu xaw a jàpp salaatu ala nabi te bali ci des euh, mbokk yi gannaaw bi ñu gëmee yàlla nag ndax yàlla dafa waxoon ci alquran wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qul atiu llaha wa rasula fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin yàlla waxoon na ci alquran ne na ngeen topp yàlla su ngeen toppee yàlla ba noppi na ngeen ci tofal yonent bi waaye yàlla nee na ku bañ lii ma wax nii boole nga sa bokk ci yéeféer yi te yàlla nañ ci yàlla musal mbokk yi mu bokk ci li jullit war a sant yàlla mooy sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que lawlaahu lam taxruju dunya min adami bu dul woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam adduna du jóge ci ñàkk bay am ndax keroog bi yàlla bëggee amal sunu ruux yi ci ruuxu yonent bi la tëggee ñëpp ca la ñu xellee moo tax bi yàlla waxee ci alquran ne alastu bi rabbikum ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo njëkk ne ballee muy aha kay kon mbokk yi yonent boobu mu doon ko xam ne anbiya yi ko fi jiitu woon xamoon nañ valeur am saalixuuna yi ko fi jiitu xamoon nañ valeur am awliya yi fi jiitu xamoon nañ valeur bi mu ñëwee ba demit awliya yi ko fi wuutu it xam nañ valeur kon yonent boobu moom ci boppam moo njëkk a wax ne man salla alayya salla alayhi llahu ashran yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku julli ci man benn yàlla dana remplacer si julli gi nga julli ci man benn def la defal la fukki julli te daana wax ne dee leen julli ci man ndax seen julli seen julli yi ngeen di julli ci man azaka la pour yéen azaka nag buñ ko waxee mooy ndollante loo xam ne dafa yokk ci li nga doon def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu waxaan ne sallu alayya fa inna allaha azza wa jalla yusalli alaykum julli leen ci man ndax yàlla julli ci yéen yéen mën ngeen a julli ci man di sikki sàkk ndax nangu naag nanguwul waaye yàlla moom ku mu julli ci yow julli ga day nangu mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na waxit ne dee leen julli ci man ndax su ngeen jullee ci man daañu ma jotal julli gi ngeen julli ci man ndax yonent bi moo wax ci xadis ne am na malaayika boo xam ne mi ngi taxaw ci sama xabru yàlla may na ko capacité mu dégg mbooleem làkk yi am ci àddina làkk wu ma nit jullee wala làkk wu nit jullee ci man malaayika moomu dana ma jottali ne ma diw doomi diw ak diw ci dëkk sàngam julli na ci yow su ko defee julli googu ngeen julli ci man ma nangul leen ko ñaanal leen yiwu yàlla su ngeen ñëwee ba ci sama xabru nag su ngeen jullee ci man man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maay jógal sama bopp fayal leen sama bopp mbokk yi julli foor bokk na ci li tax waxkat ba wax ko ne waqad istasmala ismuhu sharifu ala arbaati ahrufin hijaahiya li kulli xarfin minha madiyatun wa maqaamun ñu ne ko lu tax mu ne fal miimul ula ma min nabiyin wala rasulin illa xuliqa min nuuri talcatihi lbahiya fa huwa aslun walkullu minhu farhun bila shakkin wala ihaamin waykat ba dafa xool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu yàgg mu ne kii daal mooy sang boo xam ne turum bi boo ko seetee ñeenti xaraf la mu ne muy miim ak xaadam dellu ak miim ak dayal nit ku taxaw ku nekk composé nga jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo seetee bopp bi miim la nga ñëw ci dënn bi xaalonk la nga ñëw ci ndigg li miim la nga dem ci tànk yi muy dayal soo taxawoon di julli sax jëmmi ahmad nga indi ndax alif gi boo taxawee la xaalonk gi boo rukonwee la Euh, miim gi boo boo sujjootee la deel gi boo toogee di taaya la kon indi nga jëmmi ahmad ndax yàlla rek a fonk yonent bi mu ne miim mu njëkk mi amul benn yonent bu yàlla yónni ci kaw suuf boo xam ne euh, li nga am lépp jële wokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bu ñu seetee ne xaalonk gi mooy yonent boo xam ne turam woowu mooy raafal képp ku ko gëm say bàkkaar waaye miim mi ñu seet ne ci la caabi yërmande ji nga xam ne moom la yàlla séddale jaam ñi ci loxoom boobu la ko teg ndax kaana raufan bil muminina moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ndaw loo xam ne moo ñeewanti képp koo xam ne jullit nga euh, deel gi mu ne koy mooy koo xam ne wootem boobu képp ku ko gëm moom sallallahu alayhi wa sallam mucc nga ci mbugalam sawara yàlla nañu ko yàlla defal mooy yonent boo xam ne euh, jibril alayhi daf ko ne woon képp koo xam ne julli ci na ci yow junni yoon yàlla xaraamal na yaramam safara mooy yonent boo xam ne wax na ne képp koo xam ne dégg nga fu ñu tuddee sama tur te julli wuloo ci man bokk nga ci ñi nga xam ne dañoo nay te fàgguwoo yiwu yàlla moo tax mbokk yi ni ñuy julli ci yonent bi te julli ci yonent bi foor na foor goo xam ne kenn ku nekk ci ñun xam ne ni julli dafa am dayo ci lislaam waaye boo dul julli sax dégg ñu ne Muhammad may nañ la ci biir julli gi nga ne sallallahu alayhi te du yàq ki julli gi ngay def dara kon mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jibril dafa ñëw ne ko inna allaha azza wa jalla yaqulu man salla alayka ashra marratin istawjaba al min istawjaba min asaqi euh, jibril dafa ñëw ne ko yow sallallahu alayhi wa sallam sa borom bi subhaanahu wa taala nee na képp ku julli ci yow moom yàlla may na ko kaaraangeel mu mucc ci safara kon yàlla na ñu ko yàlla defal julli ci yonent bi mbokk yi foor na te dañuy wax ni képp koo xam ne yaa ngi julli ci yonent bi bis bu nekk ñetti yoon wala guddi gu nekk nga def ko fukki yoon bu ëllëgee yowmal qiyaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sa ramm man yonent bi maa ko warlu moo tax daana wax ne aksiru salaata alayya fa inna awwala ma tusaluuna fi lxabri an nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na bari lu ngeen man ndax su ngeen duggee ci bàmmeel benn jëmm jiñ leen di njëkk laaj ci biir bàmmeel mooy man yonent bi ndax gannaaw bu ñu la laajee maa rabbuka laaj la maa diinuka maa nabiyuka lañ lay laaj doo fa tudd Moussa doo fa tudd Aïssa doo fa tudd keneen koo fa tudd kudul yonent yàlla Muhammad daanaka bokkuloo ci daawaam kon yal nañu yàlla defal ñu mën a tontu tontu yu jub mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne julli nga ci man fukki yoon aajo boo mën a am ci àddina yàlla dana la ko fajal moo xam daf la koy jox fii moo xam daf la koy dencal ba ëllëg ndax yonentu boobu sallallahu alayhi wa sallam mooy kaana safian lil muznibina moo tax suñu maam ju baax ji borom bi jaww bu rafet ba nee na xubbu taaha lil muznibina najaatun wa amaanun min hawli yowmi liqaa'i bëgg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na defkati bàkkaar yi sax bëgg yonent bi mën na leen a sauver ndax bëgg yonent bi moo wax ni képp koo xam ne xar nañ sa xol bi fekk ca lu toll ni pépp atum ci cofeel gooma ameel man sallallahu alayhi wa sallam yaram wa ëmb xol ba araam na safara mbokk yi bëgg yonent bi rek a wóor kon nañ sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ni ida samictum almuaddina fali fa yaqu fa quulu misla ma yaquul wa sallu alayya fa inna man salla alayya marratan salla alayhi llahu asra marra summa sallu lil wasilata fa innaha manzilatuhu fi ljanna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na su ngeen déggee noddukat bi di nodd na ngeen wax lu mel ni la muy wax waaye bu tolloo ci ashhadu anna muhammadan rasulullah na ngeen ne sallallahu alayhi wa sallam su daanelee la muy nodd na ngeen ma ñaanal safaatul kubra bi nga xam ne moom la ma yàlla dig yalla teg ko ci sama loxo ñaanal ma it li waawul hamdi yàlla jotale ma ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku def lii gannaaw nodd gu nga dégg ko wax baat yi man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa warloo sa ramm yonent bi daana wax ne ah, ah, iza sami'tumul wal iqaamata fa qulu allahuma rabba hadihi daawati tamma walsalaati alqaa'ima aati sayidina muhammadin alwasilata walfadila wabcasu allahuma maqaama almahmuud alladi waadtahu innaka laa tuxlifu almiicaad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na su ngeen déggee noddkat bi nodd wala liqaamkat bi liqaam ba noppi na ngeen ne yàlla yow mi nga xam ne yaa digoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liwaawul hamdi wala yaa ko digoon shafaatul kubra yow yàlla yàlla boo xañ yonent bi loola nga ko digoon yowmal xiyaam yàlla na nga ko teg ci loxom ndax koo ko teg ci loxom mu ramm ko parce que kat nag bu ñuy wax shafaatul kubra yonent bi képp moo ko jagoo amul kenn ku ko jagoo ndax yonent bu nekk bu ñu la jubee yowmal xiyaam am na motif boo defoon sa diggante ak sa borom boo xam ne nooy jàkkaarloo ak moom di def intervention sax daf la xaw a jaaxal ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom day jóg fëggatu gaa yi topp ko mu ne yàlla mu ne bëgg julli yàlla ne ko isfa saf isfa safa wasal tuuta rammul ñu rammuloo la nga laaj ñu jox la boobu yonent mooy sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla def ay dëgg-dëgg soppey sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa li saa'iril muslimina wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim mbokk yi nañ ñaan yàlla fekkee ko déwén mbokk yi nañu yàlla def ay soppi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lañ leen indiloon ci seen émission shukran wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu